aar mbokki géejawaay ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen jaajëfal ci taxawaay bi ngeen taxaw xam nañu ni heure ndogu waxtu ndogu fii la leen fekk te ñoo ngi doog ndogu nii waaye teewul ngeen taxaw di xaar seen gan teewul ngeen taxaw pour taxaw Sénégal ngir ëllëgu Sénégal ngir élection yuy dëgmal dimanche bi ñu jëm ngi leen di gërëm ñu ngi leen di gërëm ku nekk ci turam ak santam wax géejawaay ak Kër Massar daanaka desutul suuf lépp luñ fi bëggoon liggéey tey faw ñu dem dagg filawoo yi te ci commune yoo xam ne ñoom bokk nañ ci yu gën a nekk féete ndaw ci senegal mooy commune yu gën a jeune yu gën a ci senegal Kër Massar géejawaay bokk na ci ba fi bëggoon taxawal usine ba fi bëggoon taxawal stade wal leneen gis ngeen ba ñu buggee wut ay bàmmeel sax il a fallu ñu dagg filaawo yi maanaam gaa yu tabax dëkk bi ak réew mi xalaatuñu ñi réew mi dafa soxla ay usine ak kër xelu xëyukaay ak fu xale yi war a mun a nooyee boo duggee Kër Massar ak Géejawaay lu lay njëkk a yéem mooy xale yu bëri ñu ngi ci mbedd mi heure jàng jàngiwuñu loolu ci suñu programme lay boran bu na bokk naka la ñuy def ba xale yi dellu ci école yi di jàng di jàng métier bu ñu mokkalee am liggéey te loolu dafa lëkkaloo pour liggéey am il faut que ay usine am pour liggéey am il faut que xale yi mokkal njàng pour liggéey il faut que lu ñuy liggéey si biir Sénégal lu ñu fi béy luñ fiy génnee ci biir suuf si muy or muy zircon muy leneen lu bëri ñu transformé ko fii bu ngeen demee Botswana dañ leen doon noot di jël seen diamant bi di ko yóbbu enverse di ko transformé foofu di ko taaye foofu ñu ne day dañ suñu or suñu diamant désormais fii lañ koy taayee ñu ngi bëgg a dem sax ci feneen loo tax Botswana commencé pousse waaye jël suñu or bi teg ko ci avion muy dem bitim réew jël suñu zircon dara lañ fi doon transformé phosphate bi lañ fi doon transformé kay néew léegi ICS jaay nañ ko ñay ngiy def leen neex ba nga xam ne Sénégal booy compté këru xëyukaay yi néew na suñu programme lu ci njëkk mooy fexe ba fépp rawatina fu jigéen ñi féete ñoom ñi nga xam ne jàng nañu ay métier transformation fruits et légumes ak yeneen

commande ay fenêtre fenêtre Chine kon nakala suñu entre artisan yi amé xey donc c'est une priorité suñu priorité des priorités moy nous luñuy soxlo té mu dem ci le bâtiment walum tiol walum lu ñu liggéey ko fi ci Sénégal sénégalais yi ci gis sen nous du rek pour que mu yomb ci sénégalais mais que pour sénégalais pour il faut que nous jang njàng mi tamit dañ ko war a yeesal àndal mu ànd ak xarala yu bees yi mu ñuy wax révolution numérique programme yi ñu mën ko gën a adapté langue dugal ci langue nationale yi da ngay jàng ci sa làkk parce que xam nañu ku jàngul ci làkkam ku mag nampul làkkam ku du xam xam lu mu doon waaye du mokkal lu muy jàng gis nañ fi ñu mel ni Cheikh Anta xeetu jàng yëpp dañ ko mokkaloon waaye dañ ci dañ mokkaloon aussi suñu langue nationale di jàngale suñu langue nationale donc dañuy def attention bu baax ci jàngale suñu langue nationale yi bi ci des mooy boo duggee Géejawaay dugg Pikine dugg Kër Massar gis ni jigéen ñi koo ci xool mu ngi am goitre ñi ñii ñu ngi am hypertension ñii ñu ngi ak leneen lu leen ko tege lu leen ko yóbbee mooy si xalaat yu bon di tëdd ba deux heures du matin trois heures di xalaat fan laay wutee dépense ëllëg 4 heures du matin nga yew di dang dang ci plage yi wala di dem ci euh, marché yi wala dem ci tool yi di wut loo di yóbbu ci marché bi pour jaay pour meuna tek barbe motax jigenu senegal ko ci xol bu amé 40 ans commencé na amay fièvre yu bëri donc bu ñu bëggee d'abord ñu régler problème bobu moy ben moy lima wax ci kom li duma ci delu ci waye ñaar tegal leen ay hôpitaux mobile yo xamné day ñëw ci seen dëkkuwaay yi parce que département yëpp dafa yaatu bëri ay doomu aadama macha allah waaye benn hôpital moo ciy am rawatina nag bu fekkee ni département bu am ay village ay zone rurale foofu hôpital moom da leen sori lool loolu tax dañuy teg ay hôpitaux sur des camions maanaam defar laboratoire yoo xam ne lépp lu mu laaj ngi ci camion ay militaire di ko yor nga xam ne dina fekk sénégalais yi fu ñu dën dund di leen fa faj

dugal ay hôpitaux mobile yoo xam ne day fekk nit ñi fu ñu dëkk fu may daanelee nag mbokk yi mooy élection présidentielle la ñu dëgmal président de la république dañ ko tànn ci jikko tànn kook xam-xam tànn kook dal waaye duñu tànn pour faj suñu maire 19 candidats la ñu woon 21 candidats la ñu woon wala 22 xam ngeen ni am na ku ci bokkul ñëpp dañu xamoon ni dafa rax warul woon bokk mais fukk ak juróom-ñeent yu des yi ñëpp xamoon nañu ni kii dafa rax mais man dong maa ci taxaw ni kii warul bokk. lu waral lu waral ñeneen yi jéemuñu ci dara parce que ñu ngi calculer amaana bu ñu waxee mu am lu mu ñu yàqal wala dinañ ko soxlu deuxième tour moo tax da ngeen di xool ñan la wax seen wax méngoog seen jëf ñan la seen patriotisme yegg si ba nga xam ne quel que soit alpha bu ñu gisee lu jaaduwul. dañ koy dénoncer xam ngeen aussi li ma tax a génn ci réew ministre de l'énergie jàkkaarloog président de la république ne ko li nga bëgg a def ci suñu pétrole ak suñu gaz bi dëppawul ak intérêt sénégalais yi loolu dafa laaj nga wóolu sa bopp parce que bu faites ni ragal nga président mun la top l'aide, ci li nga def ci say jëf ci biir gouvernement bi parce que laal nga dërëmu Sénégal bu boobaa doo am fit jàkkaarlook moom wax ko li ma wax nii donc bu ñuy war fit bu ñuy war ngor bu ñuy war xam-xam nañu xool ci candidat wu république des valeurs waaye